asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi neena na nu ngi nuyu njabootu lislaam gi fi daje di njabootuk sëriñ Touba di njabootuk Cheikh Ibrahima Fall ci turu jëwrin ji nga xam ni mooy jëwriñu liggéey bii nu doon liggéeyloo di sëriñ Mor Faati Mbakke jëwriñi jëwriñi sëriñ Tuubaa ji ji ju maam Cheikh Anta Mbakke di maam Cheikh Anta Mbakke waaye ci turu jëwrinam ji ci jëw turu jëwrinam yii di sëriñ Abdou Khadir Mbacke ñu gën koo miin ci sëriñ Jiili ak ci turu sëriñ Abo Mbacke sëriñ bi ne yoon wi moo baaxoo loolu ak ci turu nag ki xam ki nga xam ni dana ko def muy jëwriñu kër gii. dana ko def muy jëwriñu kër gii. def ko muy seen lépp. def ko muy séen lépp. di maam Cheikh Anta Mbakke. di maam Cheikh Anta Mbakke. nga xam ne jëwriñu tool nga xam ne jëwriñu tool moom. ka bëgg a jubal bu yemee ci moom. ka a jubal yemee ci moom. ka bëgg a jubal du ko mere. ka bëgg a jubal du ko mere. sa turandoo wa dane woon mu ni Cheikh Fallou Galass Syll sa turandoo wa daf noonu ay wolof laa koy wax ay wolof laa koy wax ay wolof laa ay wolof laa koy wax bu ko neexoon daan ay wax mu ni bu ko neexoon danaan ay wolof laa koy wax ndax ay wolof laay waxal ndax ay wolof laay waxal waaye dégg nga wolof yu biir yi wax na mu ni dégg nga wolof yu biir wax moom moo tax mu waxee noonu mu ni moom moo tax mu waxee noonu yi di leen xamal ni nag. di leen xamal ni nag. Eh, bii liggéey moom li ngeen ci bëggoon xam ngeen ko. bii liggéey moom li ngeen ci bëggoon xam ngeen ko. la rabbi alamin nee na loolu daal mooy gàttal gi. ndax du lu nuy maye. ndax doonul woon lu nuy maye. du lu nuy able. du lu nuy leble. du lu nuy leble. bu doon yooyoo. ñu bare ngi fi ñoo xam ne noo jëfe noonu nii. ñu bare ngi fi ñoo xam ne mën na noo jëfe noonu yi te cër yu lool te yor cër yu taayel lool kon bala ngeen agsi kon bala ngeen wala bala noo agsi wala nu fekk nu ñaan ko nu may leen ko fekk nu ñaan ko nu may leen ko waaye ndokk ba muy luy jaay nag waaye ndokk ba muy luy jaay wala ndokk ba mu doonee lu doon jaay bokk wala ndokk ba mu doonee lu doon jaay waaw ba ah, ah, xam nga luy jaay moom waaw xam nga jaay moom sëñ bi ne xam nga luy jaay moom borom njëg dong lay nekk borom njëg dong lay nekk waaja xëy ubbi jaayukaayam ba mu ne waaja xëy ubbi jaayukaayam ba ca jaba ndax Fallou xam nga ko tax mu ne mu ne ndax Fallou Galass xam nga ku ko tax a jóg wala ñu ko tax a jóg xanaa borom njëg dong nag xanaa borom njëg dong nag waaye ñii leb ñii ñii leb ak ñii ñaan ak ñii ñaan ak ñii màjjal ak ñii màjjal ñooñu dañoo dox ba yem ca waaye taxuñu koo koo ubbi borom njëg yi rek dong nag. lii nag lu doon jaay la. lii nag lu doon jaay la. li na koy jaayee nag. li na koy jaayee nag. tem doonoon njëgam. doonoon njëgam. mooy defal sëriñ bi li bëgg. mooy defal sëriñ bi li mu bëgg. te defal ko ni mu ko bëggee. te defal ko ni mu ko bëggee. la ca dàqati nag. la ca dàqati nag. xam nga bii jotaay moom sëriñ Fallou Galass mu ne xam nga bii jataay moom sëriñ Fallou gala la. Ah. mu ni sëñ Abdou Lahad maa ngi wax te tuddaguma saw tur waaye yow laa war a jëkk yi tudd waaye damay seereel fàllu yi jataay bu mel nii yéen rek ko mën a am yéen rek yéen a ko mën a am xanaa bokk ku mel ni yéen xanaa bokk ku mel ni yéen am jot leen loolu yéen bi mu ni am ñun jot nu loolu ah kay faal jot nañ ko de defal sëriñ bi li bëgg ba noppi. mel na sëñ bi bëgg. mel na sëñ bi bëgg. loolu moo jafe. loolu moo jafe. yéen loolu leen yéen nag sëriñ bi nee loolu moo leen dal. ñu bari daan ñu bari daan defal sëñ bi ak bëggam. na mu ko bëggee. na mu ko bëggee. loolu doyoon na njëg ci kuy jënd. loolu doyoon na njéeg ci kuy jënd. ak kuy jaay. ak kuy jaay. waaye la ca dàqati nag. waaye la ca dàqati nag. nga xam ne taran la. mooy boole ci mel na sëñ bëgg. mooy boole ci nag mel ni sëriñ bi bëgg. yéen da ngeen defal sëriñ bi li mu bëgg. ba noppi nag mel na sëriñ bëgg nag. ba noppi nag mel ni sëriñ bi bëgg. kon li ngeen bëgg faaw ngeen am kon li ngeen bëgg yéen faaw ngeen am ko. ndax sunu borom moo koy def. ku defal sëriñ bi li bëgg rek. ku defal sëriñ bi li mu bëgg rek. sunu borom defal la la nga bëgg. te yéen defal ngeen sëriñ bi li bëgg. te yéen sëriñ bi li mu bëgg. kon rafet leen njort. kon rafet leen njort. te dalal seeni xel. te xam ni. ku nekk lay ak bëggam. ku nekk lay ak bëggam. sunu borom dana ko defal incha rabbi na mu ko bëggee rek te mu gën ci moom eh, sëriñ fàllu Gala Silla yaag sëriñ Abdou laat da bokk ci jëwriñ barab bokk ci jëwriñ barab bi eh, bokk na ci ngor daal bokk na ci ngor daal ak jom ak jom sa yaakaar jépp ne sëriñ Touba yaakaar jépp ci sëriñ ne ci seeraay faal mii nga ne diggante Mbàkke ak Touba. ba ci Daaru Salaam dégg nu wax ni dañuy setal Daaru Salaam des koy sellal loolu laa ci jublu nga dem fekke ko nga dem fekke ko loolu sëñ bi ne ngor la jom la nga dégg ni ngay nga dégg ni ngay seetal daaru salaam. nga ne ci yii ma lim. nga ne ci yii ma lim. amoo lenn ngant. amoo lenn ngant. demoo ca. demoo ca. bokk ca bokk loolu daal dem ca bokk ca moo ko gën. ndax day am loo xam ne. ndax day am loo xam ne. boo ca bokkee. boo ca bokkee. mu mel nañ ko bëggee. mu nañ ko bëggee. boo ca bokkul boo ca bokkul mu mel nañ ko bëggee te nga mën caa bokk te nga mën caa bokk war caa bokk war caa bokk kon bokk ca rek loolu de moo leen dal yéen ñii moonu dal ñun ñii kon sëriñ bi nee na jërë ngeen jëfati moom daal cirub ñépp la woon waaye ñu néew a ko seddoo waaye ñu néew a ko séddoo loolu bu doon cër bu mat bët mën a tege ci saayir cirub junni moom cirub junni moom téeméer du ko séddoo mukk. téeméer du ko séddoo mukk. te gañewunu te gañewunu faaw nu woomle kat. loolu moo nu dal. Ah, mu ne xam nga ne ci Daaru Salaam gii. ak li Daaru Salaam doon ci Sëriñ Tuubaa. li Daaru Salaam doon ci Sëriñ Tuubaa. nga dégg ni nu ngay defal Daaru Salaam dara. nga dégg loo xam ne tey ëllëg mën nga ko caa am. loo xam ne tey ëllëg mën nga ko caa am. ci ak defaru ak njariñ ci ak defaru ak njariñ nga fexe ba bokkoo ca loola nga fexe ba bokkoo ca loola loolu neel murid loolu taxu la nee na loolu taxu bon di loolu xamadi rek la loolu xamadi la yaa xamadi nag yaa xamadi nag sëriñ bi nee du aw saaga waaye borom bajaaw boo ko waxoon nag waaye borom bajaaw boo ko waxoon nag danaan dag maa saaga. danaan dag waaye loolu sëñ bi nee du saaga. waaye moo yow da ngaa xamul rek. dëgg la yow yow la nga def bañ la da ngaa xamadi. bu ko defati yow bu ko defati. defal da xam rek. yow defal luy tax ñu ne la da ngaa am moom neex na. sëriñ bi ne am moom neex na. waaye aji am june. waaye balaa mën a jëriñoo la am. balaa mën a jëriñoo la mu am. da da koy xam. bul yaakaar ni loo am mën nga caa jariñu bul yaakaar ni loo am mën nga caa jariñu déedéet. as gor su amee te xamul la mu am. mën na caa loru mën na caa lore. mën na caa loru mën na caa lore. bàyyi ma yi ngay gis. bàyyi ma yi ngay gis. da ngay gis mbaam moo xam ni. da ngay gis mbaam moo xam ni. day dem ci sën ba. day dem ci sën ba. Mm, tëdd fa di wequ. di xalangu. xalangu na ba sulli wurus. mu ne xalangu na ba sulli wurus. waaye lu mu koy jëriñ. waaye lu mu koy jëriñ. ginnaaw xàmmewul wurus ak xandeer ya. ginnaaw xàmmewul wurus ak xandeer ya. du ko jëriñoo. du ko jëriñoo. bu doon am fàllu galas si la bu doon am fàllu galas si la la. bu sullee wurus wa. bu sullee wurus wa. day sëgg fab ko. day sëgg fab ko. xam ni xam ni sulli na lu koy jëriñ. xam ni sulli na lu koy jëriñ. loolu mooy gor soo xam ne da am. loolu mooy gor soo xam ne da ngaa am. te xamoo la nga am. loolu bu mu dal mukk. loolu bu mu dal mukk yéen nag mel na ni. yéen nag mel na ni. yéen ñi fekk liggéey bii. yéen ñi fekk liggéey bii. muy seenub cër. muy seenub cër. yéen ak ñëpp. yéen ak ñëpp. ngeen fexe ba. ngeen fexe ba. xam li ngeen ci am. xam li ngeen ci am. moo tax ngeen moo tax faaw ngeen nag. moo tax nag ngeen jëriñoo ko. bu ngeen ko amoon te xamu leen ko. bu ngeen ko amoon te xamu leen ko. moom bàyyi may weq ba suli doo yaayam mooy bàyyi moom bàyyi may xalangu. ba suli wurus ñoo yem. ba suli ay xeer ñoo yem. waaw ba sulli wurus nee na loolu la ci jublu nee na bàyyi ma ba du ko mën a jëriñoo mukk kon sëriñ bi nee na jërë ngeen jëfati sëriñ bi nee na daal daaru salaam gii mooy Touba. xam nga mas na noo bay armée fii. bi ne mas na noo bay yi fii ba noppi. sëriñ Fallou Galassi la. booba sëriñ Hamidou Mbacke. booba sëriñ baax joojee. mu ngi ci kaw suuf. ay ngërëm ci moom. noo ngi ñaan sunu borom dollil nu ko ay ngërëm ci moom amin euh, yàlla waxoon ni mu ne yow mii la waxoon sëñ Fallou Galass Sylla ni la. neel sëñ Moussa na ma yeewil mbooloo mi. neel sëñ mbooloo mi. te booba nag booba nag man sëñ Fallou Galass Sylla maa ca gannaaw ndulo. waaye dama doon wax ci téléphone bi. waaye dama doon wax ci téléphone bi. ngay jot li ci biir armeel ya. ngay jot li ci biir armeel ya. par benn baat. kon bu ma nekkee ci pénc mi ñu ne ma sëriñ bi nee na nga wax la nga waxoon kon faaw mu gën a jàppandi ci man kon kàddu yi kon kàddu yi sant nañ ci sëriñ bi bu baax a baax a baax nin sañ a nin sañ a defale sëriñ bi a defale sëriñ bi mooy mooy jëfal ko mooy jëfal ko ci kaw bu ñu jotee ndigalam kaw bu ñu jotee ndigalam noonee lañ ko sañ waxale ci kaw bu ñu jotee ndigalam. xanaa kon loolu moo tax ñu jox ñu kàddu yi. kon sëriñ baa ngi sant mbooloo mii. di leen gërëm. yéen ñi nga xam ni. lu sëriñ bi bëgg yéen a ko koy defal. sëriñ baa ngi ñaan sunu boroom. lu sëriñ bi bëgg rek. yal na ngeen ko ko manal amiin bu ngeen ko manee di ngeen ko def góor ñi jigéen ñi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi mag yoon wi amul ndaw yoon wi amul ndaw amul jigéen amul jigéen ñëpp góor lañ ñépp góor lañ ñëpp mag lañ jigéen ay cër rekk la jigéen joo xam ne joo xam ne jëfi góor lay jëf tey jëf-jëfi góor ñu baax ña. kooku du dégg waa Kumba. kooku waa waaw góor rekk lay dégg. ndaw loo xam ne karaw ga ñuul na kukk. ndaw loo xam ne karaw ga ñuul na kukk. te du jëfe dara lu ñuy tere. du dara lu tere. bàyyi lu bàyyi li ñuy digle. kooka mu kàllaf la. kooka na bajaa bu weex tàll. tey ndaw tey jëfi ndaw ngay jëf. des na des na yor cëri góor tey jigéen ginnaaw jëfi jigéen ngay jëf yéen nag loolu dalu leen bii liggéey daal sëriñ fàllu Galas sëriñ Abdou yow mi fi teewal njaboot gi liggéey bi ki doon lu nee na nii la ko bëgge woon kon li nu bëgg dina nu ko xam ni nu ko bëggee rek incha allah bii jërë ngeen jëfati mu ne nan di bàyyi xel. yeneen liggéey yi am daaru salaam rek. yi am daaru salaam. na bàyyi xel yu tuubaa yi rek. na bàyyi xel yu tuubaa yi. ndax tuubaa daaru salaam la wax. daaru salaam la ñu wax. am na koo xam ne sax. am na koo xam ne sax. ba ma wut gopp boo xam ne. ba ma naan dangeen di wut gopp boo xam ne. tuubaa daaru salaam lay tudd. tuubaa daaru salaam lay tudd. dañu naa ci dooli daaru marnaan. dañu naa ci dooli daaru marnaan. waaye koy dem kon tur yi day gën a gudd. gob bi loolu liñ ci jublu mooy. gob bi loolu liñ ci jublu mooy. ginnaaw yéen a ngi bay armée ginnaaw yéen a ngi bay armée bàq ya. ginnaaw a yi. ginnaaw yéen bay armée li bàq ya. yéen a bay armée li Daaru bay armée li Daaru Salaam. moo tax ma naan leen da ngeen moo tax ma naan leen da ngeen tuddee gob bi Touba Daaru Salaam. ndax bëgg maa ndax bëgg mën a defal sëriñ bi lim digle. Ah, mu ne fi mu ne gàcceeg dem katu tool. du lii rek. du lii rek. may bëgg a lim waaye ci la bokk dem ba ca tool ya di abub gopp ndax bëgg a béy dem ba ca tool ya di abu aw simiñ mbaa xepp mbaa ab radu ndax bëgg a ruuj ndax yéen ñi xam loolu du gàcce bu fekkee du gàcce it nag du ndam la dàq daal mooy ab murit moom lu mu néew néew am na ci boole yii gob boo xam ni bu sëñ bayloo mu bay sëmiñ woo xam ni mbaa jaasi mbaa peel mbaa xeb bu sëñ bi def loo lu yooyee war a dagg mu gànnaayoo ko defe ko ko fi ne day am loo xam ni ab gopp doo nga ko man waaye yoonu ëllëg newu ca yoonu sëmiñ laaj jublu gob bu ànd ak ba. lam man lam man. aw si mënu ko. mënu ko. xepp mënu ko. abradu mënu ko. waaye nag kon waxaale naa yi ci des. kon nan ya ca des ku ne la nga man sa mënu ko. kon nan wut yëpp rek. moo nuy noppal. rawatina nag nun waa booloo baax. waaw da ngeen waroon di da ngeen di waroon di wër murid yi. mu ne xam nga bi suñu Fallou Galas. ndax bu amee permis mu ne ndax bu amee permis rek doy na. yeneen i këyit lañ laaj i këyit lañ lay laaj. naan la ndax am nga ko. naan la ndax am nga ko. suñuy këyit suñuy mu ngi noonu ñun tamit ñun murid yi. su neexee dañuy gànnaay yoo xam ne. su neexee da gànnaay yoo xam ne. yéen ñi ànd. yéen ñi ànd. su leen neexee di ko laaj par benn. su neexee di ko laaj par benn. ndax am nga nangam. nga ni waaw. ndax am nga nangam. ndax am nga nangam. nga waaw bu manqué. bu manqué. nu xam ni. nu xam ni. ka yor permis. ka yor permis. te amul visite technique wala. te amul visite technique loolaa ko dal moom itam. kon na ku ne fexe ba am gànnaay yooyu. te diw ak diw nag. te am nan ko moom. am waaye Fallou Diouf mii di wax nag bokk ci. man awuma yëpp kon murid yéen tam kenn ku ne na gànnaayoo lii nu mu kenn ku ne na gànnaayoo lii nu wax dalay noppal ndax li dàq ci am murid loo soxla dem wuti ko fa moom te duti wuti fenn soxla loolu de moo ci dàq moom wala boog ci yi neex la bokk jërë ngeen jëfati loolu sëñ bi nee na ab soññee la ginnaaw cant yi ak ngërëm yi nee na bi nu bokkee teew. bu ni woon. sëriñ bi nee na. jërë ngeen jëf. doyoon na. la ci def lépp nag. la ci lépp nag. ñu dolli ko ci. taran la rek. taran la rek. waaye farata ji mooy. waaye farata ji mooy. liñ doon wut. muy jaajëfi sëriñ bi. ban defee ak bëggam rek. ban defee ak bëggam rek. lan jotoon ci loolu. lan jotoon ci loolu. kon jërë ngeen jëfati. jërë ngeen jëfati. jërë ngeen mu ne yàlla na fi sunu jëwriñ yi yàgg. yàgg noo jiite nu yàgg seen ginnaaw lool amin ci barke sëriñ bi daraje Cheikh Modou Falilou daraje sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal borom dëkk bii ak jëwrinam yi amin amin nan nangu ñaan